seetaan naa ko bu baax mhm. mais dama jàpp ni ñoom foofu ñu doon casé du woon foofu foofu remplir contrat moo leen fa indi woon hmm? amuñu droit bu ñu fa demee tam bu ñu amee occasion ah, non non non non non non hmm. non remplir contrat moo leen fa yóbbu woon hmm. waxuma nag pour lu métti kenn métti na leen nañ remplir seen contrat nañ xëy dañoo am association Gris Bordeaux est le président qui est le vice président est-ce que du bébé Saloum xaw ma. waaw xaw ma xaw ma adjoint beeg yooyu. waaw na yëkkati téléphone am convoqué am réunion d'urgence teg affaire bi ci table bi. Mhm. mais foofu keroog intérêt personnel moo fa amoon bu ñu doon lijjanti ay intérêt personnel yu ñu doon lijjanti. yow da ngaa ku ci doon wax sa intérêt bopp tax. yee dafa amoon te dama ko ci gis. Mhm. man ragaluma li may wax fu ma fekk dama koy wax keroog ni ñu doon waxtaanee. intérêt personnel lañ doon Gris Bordeaux après démb sax bi ma déggee CNG quatre cent mille la ko dagg moom est-ce que kon moom ma gën a waral ni moom ma gën a wan ni intérêt personnel lañ doon xuloo foofu démb man dama seetaan président Birahim jeex. ca Lutte TV. waaw mais dama ko mujjee seetaan dama ko mujjee naw. Birahim waaw ci tontu yi muy tontu lu ko laaj day tontu mais Gris Bordeaux quatre cent mille lañ ko dagg na sant na sant. nit a ngi bëri ñu dagg la 4 millions dagg la 5 millions ñun dagg nañu 6 millions. yéen ñi dagg nañ leen 6 millions. waaw yu manqué. est ce que du ñu manqué 100000. loolu tamit lañuy wax ne est ce que war na demee nii est ce que. loolu jaarul non non non non hmm. Babacar. gis nga dëgg bu taxee nañ ko wax. Hmm. CNG règlement lañ teg indi teg. Hmm. yi respecté wuñu règlement wu CNG. respecté ko. non non Hmm. nañ koy wax te dee quoi respecté wuñu règlement CNG ñu ko ci respecté bariwul CNG bu lay convoqué dalay jox da jox PV. Hmm. ne la lii ak lii dañ koy tere ci stade bi lii ak lii dañ koy tere stade boo ñëwee lii ngay dem fii nga jëm fii nga jëm tas de personne nga am exemple bu ma mayee bu ñu mayee dix. Hmm. Moodu ànd ak dix mbër. Moodu du nangu ma des ci bunt bi. du nangu Papis des ci bunt bi. du nangu Baba des ci bunt bi. waaw du nangu Ahmed An des ci bunt bi. du nangu Mor des ci bunt bi. du nangu keneen ak keneen des ci bunt bi. léegi day ñaan loolu ci bunt bi. loolu ci bunt bi mën nañ ko may. mais ñi ci bunt bi bu la ko mayee ñi ci biir boo duggee mën nga dugg ba ak mais ñi ci biir superviseurs yi bind lañ xam. waaw. parce que tamit ñoom c'est les stars. parce que amna lo xamne buñ ko ñaané war nañ lan ko may ñom ñoy star yi. Kanta nak li ñeneen ni def dafa tëb comme Balla exemple limu def tëb bi jot na lettre kenn warta tëb ci buntu lañuy jaar. mom bal waaw lolu sen dem président néna am jot ñom ñep jot nañ ko xam nañ ko. Ama balé sondel la taal CNG dañuy téré ko tal arena nationale. fourna sax doo ko fa man léegi lu tax ginaar yi duñ leen ci dagg te yooyu dañ ko tere woon wala loolu dañ ko bàyyiwaat luy dund kenn daaw ko indi demoon nañ ba tere ko fa xaw ma lan moo taxaat xew kon tey jii mbër yi ñoom ñooy responsable bu njëkk de leurs actes. ci li ñu ci maanaam ci ci li ñu leen di dagg. mais nga tere sondel te ay pétard moom ñu. Ah, du ko taal ci xam nga tey jii EDA ay fumigène comme ni mu amee président CNG dem expliqué na nee promoteur bi da koy ah day demandé loolu CNG. loolu day am day am ñoom tamit dañ koy waajal. Hmm. te li mu expliqué d' ci yow supposons xoolal combat Balla tafatin bu njëkk ba. Balla Gaye sangoowul essence. juumu juumuñu sotti ko essence ci beudi yi. waaw bu ko tak tak jegewoon lan la wax. arène nationale fii nii yàggul dara ci mu kaayam dawam fi tàkk ba sapeur yi ñëw. président mu ngi kay leeral mais gars yi dañ ko fàtte. mais gars yi ñoom bu ñu dàqee di ginaar di waxaale seen soxla am seen i compte personnel yi ñuy lijjanti toog ci plateau seen dernière face to face di ko lijjanti. ku ci am compte personnel booy lijjanti baal mbër ngay utiliser. mbër nañ nekk nit nañ jël seen bopp yi defar ko bu ñu leen utiliser bu amee ku am ak problème CNG na dem CNG. jënd seen problème ak ñoom mais ay dàq ginaar waxaale soxla moo fa amoon. yow loolu nga ci gis yow. moo fa amoon kay. loolu la Serigne Ndiaye wax yaakaar naa ne loolu la.